entreprise la voilà. waaw entreprise waaw. c'est sama gars yi. waaw. rek ak mbégte la mbégte. macha allah waaw di kontaan rek dégg dégg sama sama sama jigéen ñi nga xam ñoo ma ñoo ma defal jiw. suma suma yaa traité la. macha allah kontaan naa trop. macha allah liggéey liggéey bi rafet na te te bëgg waaw macha allah kontaan naa mais tey lan nga lan nga yëg nga xewlee nga nga di sax laa wax nga gis say xarit say mbokk say am di jàmm mu mel ni tey yow yaay Sénégal waaw contentement mhm. contentement ak xol bu mhm. ba pare ñu doog

ndeysaan suñu yaay ju tedd ji dem yàlla yàlla barke ko doon sutura mais ñenn ci sénégalais yi wax ni euh, image ñu gis moom jabar am waruñ ko a génne parce que am na ñu fan waaw dama dégg ñu ne nag fornaat ci weewu bay du moom moo ko génne mhm. ki ko def ki photo moo génne loolu mais Eumeudi du ko def mhm. démb ci guddi ba ma ñëwee loolu laa njëkk daal ci moom mu ne ma wallaay du man moom soxna sax ñoo ko dina ne ma du ma mhm. mais dañ koy ñaanal doomam ji mu fekk yàlla ko yàlla may jàmm ak salaam sutura mu fekk atal ko waaw mais du moom moo ko génne te tax amul woon avant bi sax ñu génne genre affaire yooyu jaamu bi yàlla ak dogalam Amary Badiane bokkul ci genre affaire yu mel noonu dañu koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla lafal cat dafa ko am mboolum jullit di ñaanal soxnaam si ndeyaa jigéen ju baax tubarkalla am jàmm am jom am fulam fayda yàlla na yàlla barkeel tuddal sutura xewal Amary daal mention spéciale ak ñu téye njaboot gi tubarkalla ni mu téye njaboot bi téye bàyyam bu tedd gi fii Eumadou lu baax rek lay am ndax ndeyam du ko liggéey kër bàyyam tubarkal yaay faa ñëng wàllu boobu ah ca kanam di ngeen xam ne lépp dëgg la ca kanam tuuti rek gars yi ca kanam tuuti <laughs>